abonnez-vous sur notre chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes Ça, c'est une ngeen mu mel ni nag lu doy waar rek moo am file ci bile procès ndax ndaw ñi mer nañ ba futtu eh, taal bus Dakar dem di dikkiile waa itam taal rekk benn Auchan bu nekk fii ci Mermoz loole lañ fi nemmeeku nag fi mu nekk nii waa Medina sax ñoom itam ñi nga xam ne dañu ànd ak kile eh, di eh, Bamba Fall ñoom itam dañuy riposté jug mer ba futtu di fayu mu mel ni sax li nu mel na kon mu ngi taqar naa si fii ci Ndakaaru dem rek ci woy takk der yi kaskan wi génn ñoom itam rek di jàppale waa itam di ñaxtu rek mbokk yi jaajëfal nañ leen bu baax a baax wéy leen rek di ànd ak chaîne bi lee di abonné waaye bu leen fàtte itam di bës rek cloche de notification bi